إن الذين بايعوا الرسول بخدمة الخلفاء yal naw sosam tool ci ne biir waaru Seexuna Sëriñ Sall Touré Saadiq ba moo fekk ab sangam xandoor des na ci waaram saxaar yéeg na ci Ibrahim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alladi xalaqa almawta walxayaata li yabluwana ayuna ahsanu amala wa huwa alxasis alxafuur wasalaatu wasalaamu ala man unsira alayhi laqad kaana fi qasasihim ibratan li albaab wa ala alihi wa sahbihi abraar maa ngi tàmbali samay kàddu ci tur sun borom di wax bismillahi arrahmani rahim di sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo bind dee bind dund ngir nattuñu ngir xam kan moo gën a rafet jëf ci ñun yàlla moom mooy aji tedd mooy jéggalaakoon bi maa ngi julli di sëlmal ci ki nga xam ne yàlla daa wàcc ci moom ne ko li ma lay nettali ci xisa yi ñuy jiitu woon di ay yonent bind da caa nekk ak ibra ñeel ñi am xal julli googu nelaw ba ci ay ñam ak i saxaabaam yu baax yi ginnaaw loolu maa ngi nuyu assamadiya waa assamadiya nu yóbbu islaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala di jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou Samad mi kilifa ak Assamadiya ak mboolem sang su baax su tedd si nekk ci biir Assamadi yëpp ak boroom xam-xam yëpp ak mboolem ki njëkk a tàbbi ba ki mujj tàbbi waaye di jaale ñépp eh, di masawu ñëpp ci xew-xew bii te mooy wàccu liggéeyu ak Cheikh Salihou murit saadiq boobu boroom xam-xam boobu euh, imaam boobu nitu yàlla kooku euh, murabbi boobu ñu ngi ñu ngi koy jaale ñëpp moom nag nituk jikko la woon waaye nituk jëf la woon waaye nituk judd la woon judd bu rafet waaye jikko yu rafet waaye jëf ju rafet ci la jeexal ak dundam moom nag mu bokk ci askan woo xam ne nii ci néeg ndeyam ak néeg baayam yépp dañ leen a xam ci diine sàmm yiw mbaax liggéeyal alxuraan ak xam-xam fi mu bokk ci néeg ndeyam ak néeg baayam lii lañ leen xamee bu dee waajuram bu góor sëñ Madou Kumba Touré euh, moom ci waa Mbakol la Kër Ma Diop foofu ci Mbakol foofu la nekkoon doon na it euh, ci ñi seqoon ak Sëriñ Tuubaa bu wér-wér waaye nekkoon moom Seex Madou Kumba Touré. xarit bu jege lool ci sëñ Babacar Jaxate sëñ Mbay Jaxate doomi sëñ Xaadima Xaadima ma kala Jaxate euh, sëñ Mbay Jaxate sax na ko lenn ci ay way ak ay dénkaane kon foofa bokk ci néeg baayam ci askanu Touré ñu xam leen ci diine sàmm baax alxuraan euh, xam-xam waaye di mbokkam réew mi yëpp nag ci wàll yëpp rek ci kokkeek ci ndaam yëpp rek muy seen bokk bu dee waay juróom bu jigéen soxna Anta Xuma ñii di ko wax soxna Màggat Xuma mooy waay juróom ci euh, njabootuk walliw wasiyu wu ñu xamoon ci bu yàgg maam gànna biraam xuma nga xam ne ñoo jógee côté Mali jaar côté waalo voilà ñu jógee côté hmm, ñii ne waalo ñii ne jaar nañ tamit côté Tombouctou jaar waalo ànd ak mbooloo mu bare bare ci ay taalibe ak ay topp ñu ko topp ak ay jegeñaaleem ba niñ accès ci Kajoor ci xiste bu siiw bu ñu xam nga xam ne yoon woowu maam Gànna Biram xuma ay xar baax yu yu yu bari feeñ na ca te lépp jëm ci liggéey islaam ak tasaare diine tàmbale ko ci Mali jaar waalo ba ci Kajoor am na maamam ju ñu wax sëñ Babacar Xumma maamam ju ñu ku bari woon karaama la ku bari woon ay xar baax la moom moo jàngee kokki sëtu maam Gànna Birame mii nag moo jàngee kokki ci sëñ Maxtaar Ndumbe nga xam ne maam Gànna Birame xuma mii moom itam moo jiitu Kajoor Maxtaar Ndumbe jamono ju yàgg la njëkk faa dugal lislaam te saare fa diine euh, ay xar baax yu bare bare feeñ ci loxam bu ñu bañutoon guddal darañ ci yaatal kon daal Serigne Saliou Touré mi ngi noonu ci wàllu askanam ci tënk ci ñaari ñaari waajur yëpp rek fu ci ne xam-xam ak diine ak baax di niti alxuraan di niti xam-xam niti dundee euh, seenu ñaq lu bari nag ci ay karaama euh, feeñ ci ñoom ci ñaari waajuram yëpp ci ñaari néeg néeg yëpp néeg yëpp néeg ndeyam néeg baayam foofu doon naa yem ci wàllu googu moom nag mm, bi mu feeñee àddina rek gane àddina rek euh, bañ koy jox aw tur ñu koy jox tur yàlla dogal na sëriñ Saalix radiyallahu taala wala anhuma fekk na ko sëriñ bi moo ko tudd tuddee ko boppam jox ko turu barkeel wi mooy as saalix waaleykum salaam jox ko turu baax wi di as saalix nga xam ne moom la ko sëriñ Touba tudde woon as saalix am alif ak laam kon Serigne Saalix a tudd tuddee ko boppam mu des ci waajuram ci sëñ du Kumba Touré Kumba Touré Euh, di jàng alquran ca mbaakol ba mu àgg ci surtu xaaf xaaf wal quranul majid saar woowu nga xam ne sëñ Tuubaa nee na ku bari loo koy jàng yàlla dana la musal ci sukuraatu ndee ci mettitu ndee mu ngi ci sirkul jawaahir ba mu àgg surtu xaaf nag la ko waajuram jébbal turandoom yi di sëriñam sëriñam bi di as Seex Saaliu Mbàkke booba nag ba ni fi sëriñ Saalihu jóge musta dañ di nekk ci ron sëriñ Saalihu nekk ci tarbiyaam nekk ci liggéeyu ci xidmab sëriñ Saalihu moom nag bi mu duggee ci loxoy sëriñ Saalihu sëriñ Saalihu li mu mooy forme ko ci wàllu xam-xam wàllu ruu wàllu jikko tarbiye ko tarqiye ko tasfiye ko def ci moom xam-xam defar ruuxam defar jikkoom sëriñ bi jàngal ko jébbal ko nag boroom xam-xam yu mag yoroon daar yu mag ci Jurbel bu dee ci alxuraan ji ci loxoy sëriñ Mor Mbay Cissé mi ñu xam ci xam-xam ci alxuraan fa la mokkale alxuraan fa la maîtriser alxuraan ci mokk ko mokkal ko ci tajwid ci bind ko euh, foofe sax la fekkanteeg al cheikh Mouhamadul Muntaxa al xalifatul xaali xalifatul waxt ayyadahu wa nasarahu wa xafisahu wa raxa fa mu fekkante ak mi nga xam ne tey mooy sëriñ Touba moo fi nekkal Serigne Touba te mate ko sëkk yal na yàlla sàmm ko watt ko aar ko dëgëral ko mottil ko ay mébétam yépp te nu yàgg ci ginnaawam muy joxe ndigal ñi di ko jëf ñépp sax gis nañ ci vidéo Serigne Mountakha. war a waraha di nettali ne foofu lañ xamante woon moo moo sëñ Saliou Touré jàppante ak moom kóllëre ca daara sëñ Mor Mbaye Cissé jooju ba sax sëñ Muntaxa wax ne sama bopp dama cee xamul lu bari waaye booba am na lu lu mel ne moom gën a xam sama bopp booba am na lu ma doon wax dama junj loo xam ne tey jii laa koy soog kii kon nga xam ne kon mel ne ne am na lu doon junj sëñ Muntaxa ca booba sëñ Muntaxa loolu dem na ba teg ci bëtam. te nag ni ko sëñ Muntaxa junjee rek doy na kon jarul leeral waaye loolu lañ ciy déggee rek mooy dañ ciy xamee ne kon sëñ Saliou Touré ku ku yàlla teel na ko mooy kassu te mooy suñ borom di ko wuññul yu yu lëmu yu agseegul mu mën a leer ci moom loolu rek lañ ciy dégg kon foofu la jàng alquran ginnaaw ga mu jàngee ci ñaari borom xam-xam yu màgg yoo xam ne nii li ëpp ci euh, yoon wi ci boroom xam-xam yoon wi foofu lañ génne ku njëkk ka mooy a Cheikh Mouhamad Dem mm-hmm. bokkum sëñ Tuubaa mu bokk ci maam Arab di boroom xam-xam bu mag te moo fi li tafsirul Jalaalayni ci olof jàngee na fa xam-xam ak ci. ki nga xam ne moo nekk aminu siru cheikh te mooy ak cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana moom itam sëñ Saliou jàngee na ci moom fa la jàngee mboolem mutoon yëpp ak funoon yëpp ci xam-xamu sariya ak fiqh luxa ak aadaabul arabiya foofu la ko jànge daaray sëñ mu dem jooju fa la fekkenteeg sëñ Moustapha Abdourahmane moom sëñ Abdourahmane Lo moom soxna muslimatu moom sëñ Tuubaa waaye fa la fekkanteeg euh, sëriñ Cheikh Mbacke newoon taawu sëriñ Xaasim Mbacke ñoo bokkoon nekk foofu sëñ ma su ma jumul ak sëriñ Saali ak euh, sëriñ Sidi Mbacke moom si Abdou ak ku ñu daan sëriñ Ahmadou Dame Touré. ñi taalif saadul muslim euh, di bàyyi euh, Lamine Touré moom yàggay Touré mi bokk ak sëñ Saliou euh, Touré lépp kon foofa la jànge ba doon alima kulli fànn ràññeeku ci xam-xam ci wet yëpp ñëpp xamee ko xam-xam ci ëttub Sénégal mu nekk un jurisprudent nekk gëstukat bu mag mhm. jëf jëf yu rëy ràññee ko ci xam-xam am na risaala bu mu def risaalatul mutawassatul hajm di ci wane ak te foon loxo ci lislaam di ci défendre wala di ci wan atte loxo ci islam muy ñuy wax su joor tey indi ci ay preuve ak ay tegtal yu yu am solo yu am kattan yu am doole ci alquran ak sunna ak fiqu saaba ak taabihin yi allahu akbar xam-xamam moom moom sëñ Saliou Touré xam-xamam moom foo ko takk weesu na ko mas naa fekk jataay boo xam ne nii place de France Thiès la ko defoon woon njàpp naa ne njort naa ne waxtaan woo ba léegi am nañu ko am ndax am nañu ko enregistré woon waaye place de France Thiès su ma soriwul du sori quatre vingt quatre vingt daal digg diggal boobu sëñ Saliou Touré place de France waxtaan woowu keroog da koo jëmale ci nax ju xadaayil xaaj waaye keroog dafa leeral nax ju xadaayil xaaj leeral lu leer nañ woo xam ne ña fa nekkoon keroog ñëpp dugg na seen bopp. xam naa waxtaan wu ko amaatoon tey génne ko waxtaan wu am solo la mosuma gis waxtaan wu amee noonu njariñ leeree noonu matee noonu ci téere bi di nax ju xadaayil xaaj te sëñ Tuubaa def ko ci ay teggin mu def ko conférence place publique place de fekke naa fekke woon naa jataay boobu allahu akbar doon naa topp sax lenn ci ñi ma xam ne xamoon nañ fekkoon nañu ko ci am enregistrement bi maa ngi ko doon topp ci ñoom jamono yi weesu ngir bëgg amaat loolu ndax am solo gi am solo kon boroom xam-xam la woon te ku jaar ci moom daa fekk naaru ganaar yi ñëw fa muy waxtaan ak ñoom ci xam-xam di waxtaan ak ñoom euh, ci wàllu xam-xam yu bare bare waaye gis naa marsiyaam bu am solo marsiyaam bu am solo bu sëñ Saliou Touré defar defaroon ko sëñ Bachirou moom Cheikhul Khadim bi mu fi wàccib liggéey damaa ba bayit ya jamono ji waaye marsiya bu am solo la woon yàlla na ko yàlla fayal kon nitu xam-xam la woon bi mu ko bi ñu ko indee Cees samp ko fa mu jiite murid yi di jiite jàkka je loolu te terewul mu continuer di gëstu ci xam-xam nekkoon tamit am na jamono daan liir fanaane liir di gëstu ci xam-xam amoon na maktaba bu am solo boo xam dañu fay fekk mawsuuxaatul fiq ak ilmiya ci mboolem xam-xamul islaam yëpp ci tawxiid fiq tasawuf fatawa kutubul hadis ak tabaxaat ak mahajim kutubul balaax wal adab wa sihr wax naa ko léegi shaaxir la woon mhm, shaaxirun muflix mhm. poète la woon waykat la woon kon jàng ak jàngale tamit uh, ci la nekkoon man ñii moo ma dalal sawru si xaar xam ne kon daana jàngale xam-xam sawru si xaar moom wax jàmbale jàng jàngal man dama ko fàtte mukk bismillahi ci tur yàlla laay tàmbali sama wax arrahmaani ka di aj yërëm koo neex ci àddina arrahimi ka di aj yërëm koo neex ci àlaxira wasala yàlla doole xewal allahu yàlla ala sayidina sunu sang ba dem jeexee ginnaaw auzu billahi min arim moom la ko daral kon loolee yittim la woon te ci ay maamam la ko donde moo tax bi muy nekk bi ñuy bi ci Cees bi ñu fay nekk booba ci jàkkay murid bi foofu sëñ Saliou Touré def na fa daaray alxuraan jamono yooyu ku ñuy wax sëñ Cheikh Ñing sëñ Cheikh Ñing euh, boobu ma fay jàngale ma ngi Cees ba tey nga xam ne ci jàkk ji la ñëwoon daara ji dem na ba yaatu lool ba li nekk man na deux cent cinquante taalibe sëñ bi kàddu seen lépp seen dund seen wér-gu-yaram euh, yi war ci ñoom seen yarub diine seen yarub fiq ak yëpp at mu jot mbooloo di ci génnee di mokkal alxuraan kon dundam lépp ci xam-xam jàng ak jàngale la ko def waaye waxtaan woowu mu defoon ci nax ju xadaayil xaaj waxtaan woowu bu gënoon jamono yi jamono soxla na ko lool mosuma dégg waxtaan bu mel noonu ci téeréb nax ju nga xam ne waxtaan bi yëpp conférence publique la ko def ñuy waxtaane nax te téere boo xam ne téere yar lay jàngale tey jii ay colloque ak ay jataay yu yaatu war na ko woon def ci nax ju xaaj ba ndaw ñi gën a xam yarub sëñ Tuubaa fekk naa ba tàyyi ceese mbooloo mu bare bare ñu ñëw ci moom jébbalu waaye ñu jox ko mu jëlaat leen jox leen sëñ Saaliw sëñ Saaliw yóbbu leen ca daara ja xam naa ci ñu bare bare ak nag ñu ne woon Cees ñu xam leen ci saaxire lool waaye ñu dugg ci loxoom mu tarbiye leen defar leen ba ñoo ñëpp ñu xam seen yiw ñooñ ñëpp ñu xam seer bu baax ku min Thiès xam nga loolu ku xam euh, sëñ Yoro Diop sëñ Yoro Diop ci yuwaay ba ca sell ga ca mbaax ga euh, xam fam jaar sëñ Saliou Touré ak bu njëkkoon ak it euh, ni ko sëñ Saliou Touré defaree ba doon nit ku mat nit ku sell nit ku yiw nga xam ne dafa yiwa ci jikko yiwa ci ci ci ci lépp rek ci ci l'apparence nga xam ne ni biir gi ni biti gi yiwee noonu la biir gi yiwee Mhm. ku xam ku xam sëñ Saliou war nga xam jërëjëf ak ñoom sëñ Cheikh Anne rahmatullahi alayhi allahu akbar waaye noonu mu xire ci daare alquran yi noonu tamit la xiree ci yar ay doom ak njabootam yar leen yar diine ñoom ñëpp mu yóbbu leen ci daare euh, Serigne Saliou ñu fay jàng alxuraan di fa jàng diine ak usulu sariya ak dikk yu baax yi ginnaaw bañ jàngee ba jël si waat ah mu dikkee leen ñu ne ci jàng ak jàngale daara yi xam-xam jàngale tawxiid fiq tasawuf luxa balaaxa aadaab usul ba daaram jooju mujj nekk daara yi gën a mag ci Thiès ñu génne fa ay borom xam-xam ay fuqaha génne fa ay gëstukat génn kooku mooy sëñ Saliou Touré ci wàllu digg ma xam-xam ginnaaw bi mu jàngee ba xam ni war a xam fexe nag loolu mu xam mu dugalaat ci ay nit ci alxuraan euh, ci jàng xam-xam nga xam ne kon ndono loolu mu doon ne woon ci ay baayam ay maamam ndono loolu da ko jël sàmm ko defar ko yéwénal ko su weesoo wàll googu nag diggam ak taalibe moom sëñ Saalix allahu akbar moom sëñ Saalix Ture diggam ak taalibe hmm. ginnaaw buñ ko xoolee ci anglub mu nekk euh, un jurisprudent xool ko ci anglub nitu xam-xam nan ko xool nag ci anglub nitu taalibe takat taalibe dëgg dëgg dëgg ngay jàng nga li nga war a jàng ba ba noppi sóobu nag ci ak taalibe gis nga ak cheikh Mahamadul Moustapha ak cheikh Mahamadul Fadil ak cheikh Massamba Mbacke ak cheikh Moroqi Moussa radiyallahu taala anhu bañ jàngee alxuraan ba maîtrise ko bind ko euh, jàng xam-xam ba noppal ci yéen jolof na leen sëñ Tuubaa woo ne leen duma bàyyi kenn sëñ Moustapha ak cheikh Mahamadul Fadil génn duma mag kenn sëñ Massamba génne duma nijaay kenn sëñ Moroqi Moussa génn waaye lii ne fi man na ku fi wut may sa mag may sa baay di sa mag di sa nijaay Serigne Saliou Touré bi mu xamee lii ba noppi nag jàng ba jàng li war a xam nag daa nekkoon murit saadix nekk arrabaan yi jeex tàkk ci bëgg sëñ Tuubaa dundal gi yëpp mu jeexal mu jeexal ko ci liggéeyal sëñ Tuubaa te jaare ko ci sëriñam ci wasilaam sëriñ Saalix Mbàkke diirub bi mu duggee ci loxoy sëriñ Saalix musta dañ di ànd ak sëriñ Saalix ci di ko liggéeyal ci wàll yëpp nag li ci ëpp daar yu bari bi ko sëñ bi sanc sëñ bi dana ko fa yabal ginnaaw ba mottalee njàngam ci Jurbel la ko sëñ bi njëkk yóbbu got ànd ak lenn ci ay murid ngir mu leen jàngal foofu alxuraan waaye teewul ginnaaw ba muy toxo ci yeneen daara xas ba irsaadaati wa tawjihaati ni ko euh, sëñ Saaliw euh, di ko orienté wala fa mu koy fa mu koy yemal rek ko fa yóbbu mën nga wax ne daanaka mboolem daara yi sëñ Saaliw sos yëpp jaar na fa bokkoon ca njiit ya bokkoon ñi daan jàppale sëñ bi ca daara yooyu su daar yooyu demee ba euh, dëgër. tege ci yoon sëñ bi yebalaat ko ci yéen daara sëñ Saliou amoon na seq ci moom lool wala tef ci moom lool mu nekkoon ku sàmm ku sellal ku jeex tàkk ci liggéeyal sëriñam boobu murit saadix la woon muy ànd ak boobu mu ngi dox ci yoon nekk maj sóob nekk saalik jeex tàkk ci bëgg sëñ bi di ko liggéeyal murid saadix la woon ku jeexoon tàkk tàkk ci bëgg sëñ Tuubaa la moom euh, sëriñ Saadix Ture nekkoon jàngkatu xasida loolu tax nett na ko ca kot jàng na fa jës bul xulub di jàng jës bul xulub ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko fa ànd ak Cheikhul Khadim loolu moom euh, du ma ci sore ndax vidéo yi ak audio yi fi mu nekk ko boo xam ñëpp di ko dégg te loolu mel na ne sëñ Saliou nangu loolu la ko lool ndax sëñ Saliou radiyallahu taala léeg-léeg lay daana am lu mu daan euh, waxtaan ñu doon di leen laaj ci mbir bu ak sëñ Saliou Touré naan ko yow mi gis sëñ Tuubaa loo wax ci nangam wala loo xam ci nangam nga xam ne kon sëriñ Saliou nangaloon na ko gis ko ko mhm. damaa fàtte ban at la waaye mos naa ko dégg mu ne ànd na ma ak sëñ Saliou juróom-benn fukki at bi mu ko waxee sëñ mu fi yàgg na kon yàgg na ak sëñ allahu akbar kooku mooy sëriñ Saliou Touré noonu la àndeek sëriñam boobu ba 2007 ba sëriñ Saliou wuyu jee boromam radiyallahu taala anhu bokkoon na ci ñi nga xam ne bokkoon na ci ñi nga xam ne bokkoon nañ ci ñu doon waajal sëñ bi waajam bu mujj loolu nag doy na ko tedd nga ak teraanga àddina ak àllaaxira ci 1980 jot naa ko. la ko euh, sëñ Abdou Lahad indi euh, Thiès moom sax nettal na ko boppam nettal na ko boppam bi sëñ Abdou Lahad waxee sëñ Saali euh, sëñ Saali radiyallahu ne ko jumaa ji ci jàkka ji ci Thiès dafa noppi sama xel nekk ci bëggoon faa yóbbu Saaliha Touré ba ni sëñ Saali yabalee ñu ñëw got mu ñëw wax ko bala ci am yëpp sëñ Abdou Lahad jaaraat sëñ Abdou Khadir ndax lu jëm ci wàllu diine ji ak yëpp sëñ Abdou Khadir la ko teewoon ci loxoom jaar ci moom ñu def ko mu nekk imaam foofa ca jumaay murit Thiès man lu ci bari fekk naa ko xam naa njëlbeen nga njëlbeen nga lu ci bari fekk naa ko daa wax at yu njëkk ya rek. metti woon nag jàmbaar la waaw lii mu def Cees nii ba Cees mokk nii njëlbeen nga melatoon noonu de xëy nag ñi mujj ñi mujj moom duñ xam ne xew waaye ah njëlbeen nga kiimaan kiimaane woon na waaw xeex bu ne bu ne daj na ko fa waaw waaye mu dëgër dëgër loo yàlla mhm. wéy ci ndigalu teg seen Tuubaa ci kanamam rek te wane seen Tuubaa di wane xam-xam léppam di sëriñ Tuba am na fi yoon des koy junj rek waaye njëlbeen nga metti woon na foofu ci Thiès njëlbeen nga metti woon na lool am na yu ma fekkee yu gis ko yu ma gis yoo xam ni nii des koy junj rek waaye mën na fi ko wax ci wàllu xeexat ci wàllu bëreeg gàllankoor lépp su ma juumal yaakaar naa sëñ Ibrahima Gueye war naa ma tagare surtout ren bii rek wala ma xamul wala at yi ko rek maa ngi koy vocal naan ko ah man de mbir mi yëm na ma nekk daal lu baax loo gis njëlbeen nga day sew loo gis lu baax loo gis njëlbeen nga day sew ma ne ko ful ko bii at yu njëkk yi ko sëñ Saliou Touré di di jàng maa ngi ku de man ak Pape Diakhaté booba ñu nga foofu waaye booba de daanaka daanaka rek sëñ bi bu ngoonee bu jànga la fay nekk teew fa sëñ Saliou di jàng ko bi mën ngeen a compter ci sa baaraam ñu dem ba mujj gi jàkk ji ëpp jàkk ji fees dell ba mbedd mi tëli ba képp fees dell waaye njëlbeen ko moom ñu nii la woon ñu néew ñoo fay teew waaye sëñ Saliou du tee moom bis bu jot saa yu war a jàng dana génn ci bi ñu néew ñu bare ne fa mu jàng la war a jàng allahu akbar loolu mooy jëf ju sell jëf ju sell boo koy jëf mbooloo mu bari maag mbooloo mu néew ma sa ci nekk yow da ngay jëf li nga war a jëf rek allahu akbar mm-hmm. moo tax yàlla ñu fa yàlla fa mm-hmm. moo tax Euh, li mu jëf Cees ci euh, ornamat ñeent fukki at ak ñett ku ne gis na résultat bi ku ne gis na résultat bi ak Cees ni mu doy woon waar am na jamono euh, daanaka nekkoon na lépp mu ne su ko wax daal def koy junj rek waaye daal yàlla nañu yàlla fayal sëñ Saaliu Touré bu dee ci wàllu jikko nag wàllu jikko moom moom moom xar baax la ci woon mbooleem tedd ngay jikko yi yëpp mi ci Sëriñ Saliou Touré ba ma ci gën a frapp nga xam ko fàtte ba mukk mooy tap gi Sëriñ Saliou Touré du denc dara lu mu yor jox ko jaamu yàlla yi lu mu yor jox ko jaamu yàlla yi te kat booba ñu ne woon Cees gën koo sonal sëñ bi day yëkkati àddiyaam di leen ah, day yëkkati àllam di leen jox ñooñu seenu njaboot dañuy ñëw sëñ Saliou Touré sëñ Saliou Touré di yëkkati alal ju bari di ko jox xam nga kii jox bay jox say euh, ñi la ñi la noonoo kon say soppi jël ñoo wax waaye fekk naa ba tàyyi fekk naa ba tàyyi allahu akbar fekk euh, nit ñëwoon di laaj ndimbal sëñ bi la mu yoroon jox ko ba mu jeex tàkk la mu yoroon nit ñi ñëw mu ko jox ba mu jeex tàkk am ku ñëw di laaj si ndimbal fekk sëñ bi jox na dépense kenn ci soxna yi ba muy dem di dugg marché waaye bu amee ku ñëw di laaj dañuy dem waat soxna sa doon dem marché dañ koy dabi mu ñëw sëñ bi jël lam ko joxoon ngir ak njabootam dépense ji sëñ bi jël ko jox ko kooku di laaj nga xam ne léeg-léegi danañ toog ba ay deux heures ci ndi tàkk woon ci kër gi léeg-léegi yoro jóob bi ma doon wax yoro jóob mooy jóg li jënt allahu akbar xoolal boobu isaar xoolal googu tabe tabe tabe ba sa dépense bopp nga jël ko di ko joxe am na ci ñooñ foofu Cees moo leen taxawu tabaxal leen kër mhm. sëriñ Saalix Touré beneen mbir la bëgg sëñ Tuubaa ak fit gi ak njàmbaar gi moom <laughs> beneen mbir la am na benn sërif bu daan jógee euh, Murtaani xam naa tur wi mos ñëw ci sëñ Saliou Touré toog ci kii bi rek jékki-jékki mel na luy lox di wane daal néeg bi am na lu ci ne néeg bi am na lu ci ne naa doon nañu ko xeex nag ci wàllu baatin xeex yi bare bare loo xam ne man am na lu ma ci xam ñuy xool xool ba génn randal randal yi ñu gis ci benn biteel boo xam ne sëñ bi moom tëggu fa xamuñu biteel bi nag lu ci ne sëñ Saliou tëggu sërif bi ne ko lii la lii moom lu bon a ci nekk lu bon a bon a ci nekk sëñ Saaliw ca pëstéef ba ak gëm yàlla gi ak doylew sëñ Tuubaa gi na sëcc bitel ba naan ko sëriñ bi ne kii moom ma ñaari waxtu ñetti waxtu kii day faatu moom liggéey bu ban bii ñu gis ko waroon ko sànni mu dafa naan kii moom day wàccu liggéey sëñ Saliou Touré dara rajatu ko mu jigi sëriñ bi naan Saliou Touré rajulul xatiir rajulul xatiir rajulul xatiir te lépp loolu yëpp Pastef ba ak gëm gi sëñ Tuubaa bëgg leen wan sëñ Tuubaa rek defe ne yàlla nañ ko yàlla fayal mboolem li mu jëf ci Thiès jëf ko ci jëfal ko ummatul islaamiya jëfal ko yoonu murid jëfal ko sëriñam ba sangam ba sañ Saalih yàlla na ko yàlla fay allahu akbar togg na ba tàyyi ay ñam yóbbu ci daal sëñ Saalih ñu fekk jël na ba tàyyi ay dongo yu ñu ko jox Thiès yëkkati ko si sëñ Saliou ñu lim bu bare bare la waaw yàlla nañ ko yàlla fayal eh, yàlla na ko yàlla wanele ak sangam bu tedd ba sëriñ Saliou wanele ko ak sëriñ Tuubaa wanele ko ak rasulullahi sallallahu alayhi wa nit ku mat a noonu nitug judd wax naa ko mu ngi noonu nitug jëf mi ngi noonu nit ku mën relation humaine euh, mi ngi noonu nit ku woyof ku modeste te fees dell mën a dis gan waaye woyof toy mi ngi noonu nit koo xam ne nii dunam gépp da ko jeexal ci ak taalibe da ko jeexal ci waaye nag ah ba muy liggéeyal sëñ Tuubaa Euh, naxul suñ Tuubaa def waaye bi ko suñ Tuubaa def fay suñ Tuubaa naxul xam naa li ma fàtte woon wax rek mooy moom man day sama waajur mm, ci wàll tur gi di sama sëriñ waaw di sama sëriñ ñaari yoon ndax Cheikh Abdou Lahat moo ma sa booleeg moom maa ngi këram mu ne ma boole naa la ak Saliou Touré nii ba amee ngërëmam am nga sama ngërëm waaw kon moo tax maa ngi ko a xool bëtu waajur woowu ci wàllu mbokk waaye di ko xool bëtub sëñ boobu ngir dal gi ma dal so sool saxaat waaye di ko xool bëtub uh, loolee sëñ Abdou Lahad waxoon ci man waxoon ma ko ne soo amee ngërëm am nga sama ngërëm te bi alhamdulilahi rabbil alamin yor na ay leetar uh-huh, leetaru ngërëmam mas naa seq moom sax ci Touba Média ci Touba Média muy def témoignage ci sëñ Abdou Lahad ba waxtaan way jeex netti na jataay boobu ma seqoon ak moom ak sëriñ Abdou Ahad ba sëriñ Abdou Ahad waxoon ne ma boo amee ngërëmam ngërëmal Saliou Touré mi am nga sama ngërëm keroog ba mu ba noppi teg na ca ne mm, am nga sama ngërëm kon am nga ngërëmal sëriñ Abdou Ahad ak yem ca teg waaw nga xam ne loolu moom tegoon nañ ko Touba Média ñëpp seetaan ko mm-hmm. kon nag loolu la fàtte woon wax rek kon daal ñoo ngi sant bu wér-wér te di ko jaal ñëpp.